ci réew mi muy wareefu képp ku dëkk ci réew mi juddoo fi yaroo fi te bokk ci réew mi rawatina ñi nga xam ne nag bi réew mi commencé nekk am réew ba tey mooy ñi gën a ñàkk gis seen bopp ci doxaliinu réew mi mooy ñun ñi ma bokkal catégorie ñuy dund dund gu dee gën dañoo nekk ci air boo xam ne ñun ñoo war a jóg génne suñuy xalaat jël suñu kàddu jël suñu ay responsabilité ci li ñuy dund lu jaarul yoon te réew mi teg ñu ko te kenn yóbbewuñu ko lu dul ay nit ñun ñoo war a indi suñu xel nag. Mhm. teg ko ci taabal ji loolu rek laay def. loolu nag soo ko bëggee def bëgg mu jàll doo ci xool lu neex ma sàmba mhm. y compris ñi ànd ak yow doo ci xool lu naqari ma demba y compris ñi àndut ak yow li nga war a def mooy jël information yi nga am ci li tax réew mu dexul ci yow mhm. réew mi bu ñu bëggee mu dem dañuy xool ko yàq li ko yàq nag du kenn nit mooy xam li yàq réew mi yëpp ku ne li yàqu ci yow ci réew mi moom ngay jël indi ko teg ko ci taabal ji loolu bëggoon naa ko préciser ci loolu nga def noonu. Mhm. bala maa ñëw ci 100 jours yi damaa bëggoon a jaale d' abord euh, ci ñaari njaal bu njëkk bi mooy mëréew di parti politique boo xam ni ñun ñoo ko teg ci njiit yi kenn dafa am ko ci mbokkam wàññeeku. Mhm. mbokkam moo xam ni jàngalekat la woon. ci ñi nga xam ni ñooy tàggat xam-xam ñooy def xam-xam ci xale yi ñu koy wax imaam moom Mamadou duggee mu dëkk cees mbokkam bu mag a mag a mag ma ko koy jaale di ko jaale partisans yi ak militants wu ma réew yëpp beneen jaal mi mhm. ma koy jaale sénégalais yëpp ci par rapport ak quatre-vingt et quelques 85 et quelques jeunes yi nga xamni ne dañoo périr ci géej gi peut-être semaines yële ñu génn. Mhm. ñu am juroom ñatt fukk ak juroom ci ay ndaw yi sénégalais yoo xam ne dañoo dee ci biir géej gi. te ñu ngi doon jëm Espagne. Mhm. njaal loolu di nekk loo xam ne dama koy njaal dama la koy dama koy jaale seen i mbokk. di ko mhm. jaale seen i seen i waa Sénégal gépp mais di ci jàngalaale timit ne xale yoo xam ne dañoo dajaloo jël ay risque gumba tëxlu takk seen i bët di dugg ci loo xam ne sinti nii Euh, dee mën na leen cee fekk. Mhm. ñu dugg ci ay ay gaal ay gaal dajale seen bopp pour dem Espagne. Mhm. ba juróom fukk juróom-ñett fukk ak juróom faatu ci. Mhm. ci même moment bi ca biir Espagne. doomu Espagne yi nga xam ni yow ko rek survolé ko rek après dinañ ci xuus waaw moom laa lay expliqué ci même moment bi. doomi ñi moom Espagne yilif yi yilif Espagne. kilifay Espagne juróom ñett ñett fukk ak juróom ci ñoom dajaloo ci benn salle. di rendre hommage benn sénégalais. bu ñuy wax Youssou Ndour di ko takkal médaille yu ci ñi ëpp jom ci àdduna bi ñi mm. ëpp fulla ci àdduna bi ñi ëpp fayda ci àdduna bi ñi ëpp taxawaay bu baax ci àdduna bi mm-hmm. et ñi daq liggéey ci àdduna bi ñi gën a gëm seen bopp ci àdduna bi nga mm-hmm. xam ne daanaka saal ba doo fa gis nit ku ñuul donc loolu moo lay wanal ni kon ñun ak ñàkk nite moom moo ñu dal te pourtant ñi nga xam ne ñoom la ñuy daw dëgmal ñoom dañuy xamal ni lépp gi ci ñun mm-hmm. exemplarité bi ñàkkuñu ko model bi ñàkkuñu ko li ñuy uti ci ñoom am na ci ñun mais au même moment xale yi nga xam ni ison ont péri dans la mer fii dañ leen di bañloo jëmm jooju nga xam ne daanaka dañ koy détester maanaam maanaam xaw ma ndax comprendre nga bon beneen débat laaj beneen bi ci des may féliciter benn sénégalais euh, bu ñuy wax Mohamed benn le président Mouhamed Ben Diop. waaw la président Mouhamed Ben Diop. bi nga mhm. xam ni bokkoon na ci listu ñi doon dagaan baatu askan bi. Mhm. xëy na jàllul woon ci élection yi. Mhm. ci même moment moom it lu war a mat juróom-ñett fukki intellectuel ci yeneen i réew. ca ca ca ca Malaisie. ñu ngi dajaloo ci salle moom it di ko décorer. mu bokk ci doomu aadama yi nga xam ni ñu koy takkal raaya boo xam ni bokk na ci nit ku ñuul ki ki ko jëkk am ci àdduna bi ci wàllu management. ci wàllu leadership. Manam modèle buñu ñu soxla ci mbirum développement personnel ci aduna bi rek. am nañu ko waye malheureusement société bi lañu ñu no xamni xam ni ñi nga xam ni ñoom. ñooy wu précarité bi ñom paré wuñu pour déglu ñi nga xam ne leen di illustrer. ci mhm. monde bi lolu je tenais à le faire. bala may dugg ci sa question. Mhm. donc question bi 100 jours le. ci yo xamni nguur gu bees gi def ci réew mi. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee doon obligation président bi génn wax ni def naa fan. lii moom laa def ak lële laa def mais wax nga ko Senghor defoon na ko mhm. Abdou Diouf defoon na ko mhm. Abdoulaye Wade defoon na ko Macky def na ko Diomaye mu ngi koy def mhm. def gi ak ñàkk gi def gi du problème mais lu muy dolli ak lu muy wàññi bu fekkoon def gi njariñ la loo xam ne dina tax ñu génn ci dund gu déggan comme ñoom ñoom ñi koy bëgg a def tey du falu ci ko gën a bañ Macky mhm. ndax ñàkk dund dund gu baax moo tax sénégalais yu bari bañoon Macky Sall ñoom nag ci loolu la ñu basé wu ba gën gëmloo sénégalais yi dund gu jàkk gu jéggi dayo goo xam ne dinañ ci jot ñoom bu ñu ñëwee moo tax ñu fal leen ci téeméeri fan yi moom gisaguma dund gu jàkk dund gu dee gën fuuf laa gis goo xam ne ci niveau bi ñu nekkoon ci Macky Sall bu ko gën a delloo ginnaaw ñoom fa la ñuy yóbbu kon moo tax moo tax ma jàpp ni génn bi génn lay lay doon waaw mënuma anticiper la ma fa a parce que génnagul mais li ma mën a anticiper mooy génn bi du ñu amal benn njariñ waaw day layal maanaam li ñu waxoon ñoom avant ñuy falu mm. ci fukki at yi nga xam ni sinti ni moom la ñu gouver moom la ñu opposé wu réew di wax di wax bër sénégalais yi dajale seen ay colère mm-hmm. dajale daw bi ñuy daw seen ay responsabilité dajale seen ñàkk investir ci réew mi ba réew mi mënuñoo jox dara ci fleur yi nga xam ne sinti nii moom la am ñu doon ut ku malhonnête ku am fit ku rëy xel ku mën a jël faardo boobu ñoom ñu jëloon ko ci fukki at yi doon ñu dig loo xam ni sinti nii France ni daal di xa dem kon jàpp naa ni génn bi génnub lay lay doon. Mhm. alors euh, génn bi génnub lay lay doon daañu dellu si waat ci génn bi mais euh, comme ni ma la ko waxee tout à l'heure yow euh, citoyen sénégalais nga acteur politique nga donc nga nekk également un observateur averti durant ces trois mois yi nga xamante ne nii def nañ ko ci bopp nguur gi ban lecture nga am ci situation bi nga xamante ne nii xëy na Sénégal jóge na ci ba ñëw ci beneen situation par rapport à régime bu bees bi lan mooy sa par rapport que euh, sur tous les plans comme on hein, est que sur le plan économique sur le plan social sur le plan euh, politique euh, lan mooy sa gis-gis par rapport ak génn bu ñu génn ci ancien régime ñëw ci régime changement am na est-ce que rupture bi nga xamante ne nii ñu ngi ko doon sentir nga waaw sentir naa rupture. rupture ou dañoo nekkoon ci dund gu mhm. mais ñi ngi doon dund. dañoo ñoom dañoo jëlee ci dund dund boo xam ne mu ngi dégg gën ñoom yóbbu ñu ci ñàkk dund carrément ñàkk a exister cest à dañoo delloo ginnaaw dund gu dégg gën bu amoon moo bu ma ko qualifié noonu laa koy qualifié mais sans jours yi li ma ci jàngatee mooy euh, euh, jaxase nañu lu bare bare bare bare bare ci réew mi moo tax man jàpp naa ni war na sénégalais yi war nañoo ubbi benn pétition boo xam ni euh, bu fekkee mën na exister benn plainte boo xam ni day def ci haute trahison Qui haute trahison ces gens nous ont trahi ils ont trahi le peuple sénégalais et dans cette trahi trahison lecture bi ñu ciy am mooy nous sommes dans un pays inondé de l'ignorance et l'ignorance de la moitié de notre peuple qui fait cette haute trahison mm-hmm. de, du régime actuel ñoom depuis dix ans dañuy ñëw ne Sénégal doxul ñun ñoo war a jël Sénégal defar ko di ñu jël ñi nga xam ne dañoo ndóol ci réew mi di leen dóor ci kaw ñi tekki dara ci réew mi jël ñi ñàkk ci réew mi di ci kaw ñi am dara ci réew mi dugg ci famille jaxase leen dugg ci entreprise yi jaxase leen ay ne yooyu wax nañoo wax a wax a wax ba réew mi nit ñi gëm leen mu jaral ay bakkanu doomu aadama rot ci fii juróom-ñett fukki nit la ci seeni bakkan rot ci wax joo xam ne ñoom nee nañ bu ñu ñëwee dañuy jëlee réew mi fii yóbbu ko feneen ñoom ñu ne nous avons un projet nous avons la solution. Mhm. avec plus de 4000 intellectuels qui ont rédigé un projet un projet mhm. bien ficelé à laquelle qui peut qui pour laquelle la situation de notre pays sera serait décantée bu situation réew mi parce que nous avons des intellectuels qui bind nañu projet mhm. am solution pétrole bi pétrole, yor L'économie, Nous avons des économie nous avons ni ko nous mbay des dinañ ci def lu Nous ci def avons des Nous ak yóbbu ko feneen mais sénégalais yi dem jox len rew mi. ci difficile condition yu métti métti ndonte ñun ñi xam xamone nañ ñi biñu wax li ñuy wax lepp ay kàcc la dara du ci deug mais ñi xamul dajalo taj ñom ñoy majorité li voté dem jox len rew mi légui biñu len leen rew mi lan lañ wax naxé mbay lañ len waxon ci projet bi lañ len waxon ni am nañ ko liñ len waxon dinañ ko def dara xasaw ci ndekete aw keuyit amut ndekete ñun ñu ngi doga mëna dajalo lelu dajaloo lëlu bind benn këyit boo xam ne ak décembre lay jeex ci ko xamni ne nga ñun junni intellectuels yi ñor bind situation mi dina changer mhm. ne ñu sax waxu ñu fi ak décembre mais fi ak ñaari at sax waxatuñ ko ci benn mandat ñu fee defar dara Ousmane Sonko mo wax lolu mu ni am réew kenn mënu ko soppi ci ben mandat c'est de la haute trahison man japp naa ni ñoom dañ leen porter plainte pour la haute traison moo tax ma jàpp ni président bi war a génne ci ngoonu tey bu génnee tamit lay layal Ousmane Sonko rek la fi mën a def comme Ousmane Sonko da ko teg fi mu. ma ni Cheikh ndax euh, ñetti weer euh, ñetti weer cent jours comme niñ koy waxee mën nañ ci xayma loo xamante ne nii xëy na dina tax ñu ni comme ni niñ koy waxee euh, le président daf ñu trahir wala am na loo xamante ne nii dig nañu ko te joxuñu ko mandat bi cinq ans la si je ne m'abuse est-ce que si diiru ñetti weer lépp loo xamante ne nii dige la. wala une moitié de ces dégâts là war nañ ko ci mën a jëfee. waaw mais ñetti weer yi dafa am lu bari loo ci war a loo ci war a saytu lu ci am. Mm-hmm. waxuma ñu doon diggee xam nga man bokkuma ak ñu bari ci ñiy seetaan ak ñi leen votel mm-hmm. man naka jekk bi ñuy wax xam naa ne ci ñetti fukki at muy fanweeri at fii ak Sénégal mënul soppeeku ci kenn ñi nga xam ne ñoo ko yoroon ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy laaj parce que lii lii soppi Sénégal kenn ci ñoom xamu ko wala buñ ko xamee waxuñu ko ndax fii li ma la wax politique gu Sénégal li ñu gën a li ñu gën a réussir mooy fexewuñu xam li askan bi di dund. Mhm. dañoo fexe xam li askan bi di xalaate dañuy jaar ci ni ñuy xalaate rek créer fi benn sorte de conformisme ou conformité fexe ba nit ñi topp leen ñu fal leen parce que dañoo bëgg a nguuru. Mhm. ñoom dañoo bëgg a nguuru bugg defar réew mi réew mi ku ko bëgg a defar dangay ngay mën a xam li ko yàq. kii defar réew mi day fekk mu xam li yàq réew mi ba pare te réew mi li ko yàq dama ne amul benn leader politique bu ko ñemee wax ci réew mi. bërki Dembo Ndiaye def na ben émission ci bir ci ben télé bir Sénégal man nan la xaw dañ ma xaw xaw nañ ma censurer han ah, ñu bari dañu japp ni sax émission bi doon def dañ ko dagg ga daggul parce que problème mu technique te problème technique la woon ñu dagg ko ci YouTube bi mais ci canal bi mu ngi doon jall mhm. mais la mu fa wax 80 pour cent u sénégalais yi neexu leen y compris ñu top ci sama ginnaaw sax nga xamni ñoo nekk ci ma rew motax man la réew mi ki defar il faut mu nekk ku paré ko xamni day dagg jëng di wax li naqari nit ñi mais baax ci réew mi te loolu la Sénégal amul 100 jours yi dafa am lu ci am non seulement defaruñu réew mais dañoo bëgg ci gouta dafa wa wa lay expliquer xam nga mëno commencé bi ngay laaj nga saga français yi yépp nga saga. Ta France boko saga moy saga nga Amérique Saga nga Angleterre ak Allemagne lolu moy les occidentaux Ta ala kulli ba duñu yilif aduna bi yilifon yi yilifon japonais yi yilifon chinois yi Amérique latine et yilif Afrique Asie océan yi sax ñoo ko yilif loolu noonu la àdduna bi créé woo ñooñu ci xam-xam lañ mën a diir ñoom mbagg nga ñëw ci ci ci ci ci ñetti weer contrat yi nga xam ni ñoom amoon nañ ko fii ñu doon liggéey néew ma bu ñu ko xoolaat ba Sénégal li mu ci war a am ñu am ko ci ñu leen di woy les investisseurs mm-hmm. ñoom bi ñu ñëwee ci bari xool nañ ko amul problème mais bokkut li ñuy gëbloo peuple bi ndax dañ leen waxoon ne dañ leen di dàq yu ci bari ñu ngi ko reconduiraat mais yeneen yu ci des dañ koo dagg dagg xëttit ci xaren den yow bu fekkente ni ñëw nga jëlum réew woon nga am nga këyit këyit bi nga yor baaxul et li nga fi fekk këyit bi nga bi nga yor bi nga demee di abbi xaalis banque mondiale ñun la yow lii nga yor aw këyitu suukar la li ma mën a continuer di la jàppale mooy PSE bi nga xam ni ki nga wutu moom la fi loolu mooy continuer di dox mm-hmm. dem nañ fi ci diggante bi leb fi benn prêt ci eurobond bi ñu yël lebal boobu intervention benn sénégalais bi nga xam ni conseiller wu Morgan la woon mm-hmm. bu ñuy wax Mouhamadou Mouhamadou Diop Diop Diop moom ci boppam mom mo négocier loolu nga xam ay accord direct la defu amulone appel appel d'offre amuloon concurrent muy lu bon ci Sénégal limay wax ni dafa technique loolu ñi am xam-xamu ci affaire économie ñom ñooy xam bu baax li wax ni mm. yooyu yëpp ay yàq la yo xamni ñun dañ koy xam léegi ñi ñew di menacer nit ñi respecté wuñu institution yi li gëna a gis na barki démb ñu recevoir ben délégation venue de la de la Russie moy manam ñun ñu ngi tok di sétane Sénégal mais ay boy yu ndaw xamuñu dara wax bañu ñu ñu ngi jël réew mi di ko yow am nga problème ak occidentaux yi léegi waxuma dara nga ni ñun dañoo bëgg la làkk Russie par la force te Afrique ñëpp xam géopolitique danger bi fi nekk ak contexte bi ñu wër Niger occidentaux yi perte nañ ko ci y aura bientôt une guerre civile. Mm. la Guinée non Guinée bokku ci parce que le gars il est encore beaucoup plus posé il comprend mieux que les autres putschistes Bon, demee Niger. il euh, y aura bientôt une guerre civile. Ça, je, non, je vous le dis, non, je vous le dis la vérité, monsieur. Non, je sais de quoi je parle, madame, excusez moi Bo deme Burkina Faso c'est le même menace mo fa tegee so demee euh, euh, Mali c'est le même menace ay nit ñoo xamni dañoo ñëw nek ay putsis jël réew mi di jël ben étiquette nu ñu détester France parce que loolu mo gëna neex ci bop xalé yi ñukoy koy pour moy ci sen nguur Ta France moy li ma la wax moo Amérique ak Angleterre ñoo and Sénégal mo leen fi déssé ñoñu bu du wonon Sénégal na gëni sen réew yooyu tak na ta tubab yoy ñoo koy taal muy lo xamni timit faiblesse bi ci ñun la parce que ñun ñu amul xel mo xamni ni wala nar munu mën nañu fexe ba duñu jaxé donc Sénégal bi leen déssé nga xamni joxé nañu signe cdao jox leen ay responsabilités ni leen nañu négocier lool tubaab yi tok di seetaan légui ñuy recevoir au même moment bo xamni Sénégal kessé fi des et Sénégal est en face avec les États-Unis Dakar ak New York Océan Atlantique bi rek mo dox seen diggante. Mm. nga xamni moy zone bi gëna stratégique sur le plan géopolitique et sur la sécurité ci zone bi ñu nek américain yi dinañ la gis yow ngay dem di jël ay partenaires yu jógee Russie ñëw di leen recevoir fii. mais mooy dañoo bëgg taal réew c'est-à-dire xamuñu xam nga li wax ni xam-xam la il faut nga xam wala nga nek ci benen niveau doo ko mën comprendre légui lolu dañuy tok di len seetaan ñoon ñi talax-talax rek parce que bëgg nañu faire plaisir ñi nga xam ni ñoo len voter tal li ëpp lu baax nekkul ci seen biiri bop lolu mën nuñ ko seetaan duñ ko ne moo ma tiit ci 100 jours alors euh, légui ce sera peut-être l'occasion pour ñun ñu euh, wax ci euh, vision bi nga xamantene ni mom le président am par rapport à la CDA à la CDAO gis nañ ni interpeller nañ ko pour que mu réconcilier ñi nga xamantene ni ñom ñoy les pays de l'AES ak CDAO est-ce que ah, ah, ah, ci sa gis-gis japp nga ni boobule mission mom mën na nek à la hauteur. waaw xam nga mission bi